waaw ah, euh, sëñ bi moom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a euh, euh, vraiment dañu gis ni que ci biir tàng na lool idée yaa ngi génnee fu nekk daanaka yow loo ñuy mën a jox instant bi ni jox askan bi. waaw li ma leen di wax rek moom mooy d'abord xam nga li li am nii ñu def ko en direct télévision yëpp di ko wane en direct rajo yi site yi et tout xam nga loolu li mu wund mooy parce que démb da nga gis ne dañu am une certaine opposition. bu doon bëgg a manipuler sénégalais yi ne li ñuy def dañ koy nëbb procédure d'urgence la baaxul euh, bëgg wax ne nit ñi nañ ñëw parce que ñoom seen xam ak seen xalaat fi nekk yëpp moom mooy comme amuñu xam-xam mënuñu gagner élection amuñu nit amuñu vision ñu ne nañu installer la terreur jaxase réew mi pour mën a jël nguur bi te nee naa leen léegi nag nguur moom ku ko bëgg a jël da ngay am xalaat am xam-xam dem ci sénégalais yi waxtaan ak ñoom ñu wóolu la dénk loolu moom la ñuy jëlee nguur parce que démocratie moo demee noonu waaye nag démocratie bu fekkee ne yow da ngaa bëgg ci sos euh, jaxase manipulation euh, nga bëgg a dund loolu mënul nekk. parce que li am tey mooy li ñuy changer tey ci code pénal bi dafa leer parce que en 2007 l' article 279 1 bi ñuy wax en 2007 ba léegi changé wul 2016 am na modification changé wul tey bi ñu ko indee l' article n'a pas changé ci définition terrorisme donc amul benn mot encore une fois de plus. boo xamante ni changé na ci loolu bëgg naa ko wax sénégalais yi mu leer muy benn beneen bi mooy li ñu yokk ci titre 2 bi moom mooy 16 am na modification changé wul tey bi ko indee l' article n'a pas ci définition terrorisme donc amul benn mot encore une de plus boo xamante ni changé na ci loolu bëgg naa ko wax sénégalais yi mu leer muy benn beneen bi mooy li ñu yokk ci titre 2 bi moom mooy dañ ci yokk de la piraterie maritime parce que gis nañ ne loo xamante ni la dañu ko signé muy convention internationale lu ratifié ko à l' assemblée nationale il faut ñu intégré ko ci dispositif interne bu code pénal bu sénégalais loolu moom mooy tey ci modification yi ci la bokk beneen bi mooy financement terrorisme parce que en 2016 bi ñuy voté la loi sur le terrorisme ratifié guñu woon li nga xamante ni moom la ñuy ay mode financement terrorisme ñu dugal ko tey ci corpus interne loolu mu doon loo xamante ni lu leer la ñoom nag ñu commencé manipuler naan non loi liberticide pour manifester alors nit ñi la nga xamante ni moom la ñu amoon ci disposition article huit bu constitution mu may leen ko pour la manifestation amul dara lu ci donc je pense que loolu mooy li nga xamante ni moom moo tax comme gis nga tey jii face à au manque d'argument face au manque de sérieux et de sérénité ñoom li ñu génne mooy violence verbale violence physique kuy wax ñu jéem la chayte gis nga comme ni nga nekkee ci biir à l'intérieur chaque fois da ngay gis ñoom dañuy insulter à gauche à droite vous avez vu les réseaux sociaux des députés de l'opposition qui insultent de père et de mère devant tout le monde je pense que loolu rafet buñ ko parce que représentant du peuple dafa am noo xamante ni noonu la war a taxawee donc loolu mooy li nga xamante ni moo fi. mais lan mooy opportunité voter xamante ne nga fi presque li loi bi li ñu ñoom li ñuy wax article 279 1 mi ngi fi depuis 2007 Serif loolu leer na de muy benn mhm. beneen bi mooy dama ne li ñu ci yokk mooy titre 2 bi dañ ci yokk de la piraterie maritime parce que convention bu bees la ñu yokk ko ci dispositif interne muy benn beneen bi mooy financement terrorisme ba ñuy voté loi bi 2016 amu ci woon ñu dugal ko ci tey Chérif loolu leer na donc waxuma loo xamante ni lu fi amoon li ma wax c'est très clair donc interdiction à manifester ci parce que comme ni ma la waxee loolu c'est de la manipulation c'est des calomnies amul dara loo xamante ne ni lu ci nekk na je voudrais juste dire qu'aujourd'hui